waa gis ngeen ko nii place publique bu baa nekk nii ah gars yi defaroon nañ baas yi ba pare gis ngeen waa mais dañ koo mujjee wàcce nii parce que lamb ji amul lamb ji amul gis nga waa nii gis nga gaa ngi wàcce baas yi ah yooyu bu nekk la nga xamante ne gars yi am nañ déception mais nak xeyna l'homme propose Dieu disposant hein. ah oui. salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar tay nak ñu ngi fi Diofior ah waaw boo waxee Diofior Diofior arrondissement ñi mom way bu neex boobu non ñu ñewon sétan ci lamb lamb ju rëy leen fi programmé won gaay yi 5 nak nag lañ naroon ñu ñew ko fi ñu ne lamb ji amatu

Euh, dañuy jànkontele ay problème parce que euh, cosaan wala lamb dafa nekkoon loo xamante ne ñoom la ñuy dundee maanaam boo xoolee ki nga xamante ne mooy euh, mbër ki nga xamante ne mooy woy ki nga xamante ne mooy déglukat bi amateur bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay bu fekkente ne activité lamb dafa am ñooñu noonu yëpp daanaka amoon ay jafe-jafe pour dund ñi nga xamante noonu la waree léegi tey nag bu ñu demoon dañu ne euh, fu mu nekk nii euh, benn jour ñaari jour léegi ñu organiser li nga xamante ni mooy àlla lamb parce que autorisation dafa am ci li ñu dégg ci télé bi léegi normalement tey bu ñu toogee ba ñu ne tey de autorisation amul war nañ am de cette voilà loolu euh, métti na trop métti na trop parce que boo xoolee même ci kanamu ñi nga xamante ne mooy amateurs yi ñi ci làmb ji parce que am na loo xamante ne loolu lañ yaakaar léegi nag mu nekk lu métti waaw métti na trop ci ci ci amateurs yi métti na trop ci ñi nga xamante ne même journalistes yi

ñoom la le 19 waxoon. Mhm. alors que mooy le vingt. waroon nañoo xool ñeneen defee wala ñu toléré. Mhm. ba bàyyi ñu laan laan parce que ñun namm nañ laan. ñëpp ñëpp dañoo état bi dañoo stressé wu. parce ñu ñëpp laan bu ñu defee ñu ci yaram mhm. euh, kon ni ñu koy waxee lambu facteur de développement la gis ngeen maire yii nii di defar fataa nii fas yéene ko woon. jaay ñi nga xamante ne ñooy seetaan si làmb ji waa léegi làmb ji mujjul am ñu leen bëgg a laaj ba xam ñoom ban sentiment wala ban yëg-yëg lañ am ci làmb ji nga xamante ne dañ koo annulé yaay booy nuyu nañ la teel micro bi wala moo ci kuy wax si yéen non waxal ak ñun rek waaw waaw waaw bien lamb bi xanaa ah gis ngeen ko de lamb bi moom wax dëgg neex yàlla moom demoon nañ ba nekk naan dañuy def ci lamb daal. Mhm. waaye nag xam nga daa rek. léegi lu jot rek yomb. ban ban sa ban yëg-yëg ngeen am ci lamb ji nga xamante ne dañ koo tere. Ah, waaye nag comme xam nga dëkk bi moom yoon yoon la am mhm. nañ topp yoon bi rek ba mu jeex tàkk mhm. bés bu jeexee rek bu neexee yàlla ñun ñëpp ñu bokk bànneex bi waaw merci mais Fata bi nag noo leen koy mujjee def doo leen ko jox ñu yóbbaale ko ah, waaw ba tey rek ñu ngi gars yi nga xam ne ñoom ñooy dindi baas yi ndax lamb bi am léegi kii nga xam ne lu moom sama bira la ba tey rek ñu bëgg a xam yéen ban sentiment wala ban yëg-yëg bi nga waaw ku baax maa ngi lay xoolal caméra non yëg-yëg bi ñu am moom mooy dañoo am lu ñu naqare rek ndax euh, wootee tanim na ma lay sax ah. wolof yi nag moo leeru waxal séeréer ah, ah, a séeréer le quoi yaam i njega jeg daal na feɗar na in quoi yaam xoyit tig nan neke bo adna fe yopan na nin te bug jegate daal manam a refa ka andna daal fele in quoi i i njega looxa na in ino enje jega loa lambo aduna fu ino en jega loa nu illa nu bo jaf la kadrek sa wuti damme na rekan fu pa yegin quoi jaaji jaaji jaaji wa ni da ni auto lañ auto lañ yor joge bu sori ñew sétan ñu bu wona xam ñom fan lañ joge ak nañ lañ dundé lamb ji nga xamantene amul parce que ñu nak ñom ñun ñoo bokku li nga xamantene mom lañu dund tay grand ziar la ah léegi kan mooy wax si yéen. yéen kay di wax. non gars yi rek nga expliqué ñu. da ñun kay xam nga ne déception lañ am ñun ñëpp. waaw déception. waaw ah. mais fan ngeen jógee. man Ndolong. li nga jógee ba nga Mbelongo ñëw fii nii làmb ji amoon mais chauffeur wala garant si oto bi. ah. ah ñu ngi amateur yi mooy ñu. ah gars yi daa mel ni dañoo mer ba bëgg ñu sax wax ah. waaw donc ñu dem jël ñeneen. gars yi wax ñu ban réaction lañ am wala nañ leen dundee lamb ji nga xamante ne dafa échec tey waaw ba tey rek uh-huh. ci interrogation yi ma xam gars yi ban réaction lañ am ci lamb ji nga xamante ne échec la uh-huh. sëñ bi tur bi naka la maa ngi tudd Aliou Aliou ah Aliou Diom waaw Aliou Diom donc yow yaay borom waaw waaw borom atelier bi nii atelier soudeur ah gars yi liste tuuti ku bëgg ay bunt yu baax ñëwal fii ah waaw noonu la fii ci Diofior Ngariñ na en face Euh, place publique mais lamb ji nga xamante ne daa waroon am tey te am mujjul am yow ban ban réaction nga am wala ban ban yëg nga am waaw xanaa am ci déception rek waaw ah, di ci jégalu ñi jot a déplacé wu ñu mel ni mbër yeeg amateur yeeg ak ñëpp ñoo xamante ne tamit def nañ ci déplacement fay ci seen paas ñëw ko fii xam nga loolu tamit neexul bi ñu koy organiser tamit dañoo amoon yaakaar lool ne affaire bi dina am mu ci am déception ñu ciy jégalu euh, comme ñu nga xamante ne jëlee nañ jël nañ oto ñëw déplacé wu ba fii nga xam ne dañoo fay seen paas ah li ñu mën a wax nag mooy lii waa Diofior war nañ ko xoolaat ñoom bu ñu xamuñu am bu ñu xamee ne amuñu feu vert pour tegg làmb ji waruñu woon a joxe autorisation ñu mel ni maire waa mairie bi. parce que jël nañ xaalisu gars yi defal leen këyit ñu déplacé wu dem Fatick affaire bi cangee foofu kon balaa ñuy jël euh, kii bi balaa ñuy jël seen xaalis ñoom waroon nañu mën a xam daal ba xam affaire bi buñ demee Fatick dina réglé wala du réglé waaw. loolu daal daal laa amoon li ma si wax. ok donc ñu ngi lay jaajëfal. waaw ah. waaw waaw borom atelier bi su doon mag ma defaale publicité bi nag. waaw waaw mu ay ku bëgg ay buntu yu rafet. waaw ñëwal fii. waaw bi xoyom xoyom. waaw waaw kon ñun ñoo ko déggandoo ah place baa ngi jàkkaarloog place wax nga di ñaa ñëw foofu di ko fekkee Aliou ah. ah. ok ñu ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf jërëjëf waaw njal. waaw ah, ba tey ci interrogation yi voilà ci jël réaction gars yi ñu ngi taxaw Moussa Coly Moussa bu Reug Reug wala Moussa bu Boy Mbour Moussa nuyu yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw ñu ñëwoon tey Diofior sa dëkk nga ñëwoon si lamb ñu ñëw ba à la ñu ne lamb bi du am parce que daa am ay problème administratif ñu war xam yow sa réaction wala yow lan nga ba léegi nga am ci lamb yi nga xamante ne andi na leen ko ñëpp ko doon xaar. bon tam euh, ñëpp

métti woon na trop def nañ un boo xam ne ñoom seen liggéey dara doxul ñëwoon nañ ci pas mal de lutteurs voilà ñëwoon nañ daan si seen doole mais après finalement neexul daal quoi neexul ñoom naatu fa jeex eh Ibou Ibou gars yi euh, waaw Ibou gars yi kaay ñëwal kooku amateur bu mag moom du waa Joof loolu te loolu daa am solo ñi nga sa fan si mbay mi a ko dundee ah, que ñun Dakar lañ jóge nii oto baa ngi nii gaar mhm. rek parce que ba léegi mbër yaa ngi dem di ñëw xam nga mhm. amuñ ñu leen neex daal mais li ñu gën a loolu daal gaay bàyyi mu dëgg mhm. changé programme ñëpp a ngi tëgg Dakar moo war a tëgg suba te Dakar bu ñu ànd war na mën a tëgg lamb ah a lu ñu neex de dëgg dëgg nag waaw kii kenn xamul fa mu jógee ñëw seetaan si lamb ah. def Dakar a ñu ànd si ñëw fii ah vraiment mais yàlla baax na waaw ok ñu ngi a jaajëfal mu jaajëf <laughs> waa gis ngeen comme ni ko waxee gis ngeen bi di defar caaf peut-être si lamb ji la ko bëggoon jaay lamb ji moom ñu am ñu koy nuyu di ko ziar ji amul yow noo ko dundee maire waaw waxal séeréer ñoom na andoona yee i ngara bo mene da lay ñoom no bugkate ɗoma ituño fop nu nge a ɓiya xe den na mbine nu nge a baxambaane ke mbine ne de ndefa o retna kam mbine roog o roog felee in keke moom a waagange lay i ngara na de ando ke de ndeena da anda istangi kita dan gigi mangga kau bangga njom ni jega anda ka ga isu fe sulu goro pele da goro pilih ke pele waxambaane ko comme ni ko waxee ci ci séeréer nee na lamb ji amul nekk na la nga xamante ne tey neexu ko parce que dafa di sol caabam bëggoon na kaa jaay si lamb bi donc caaf caaf bi peut bu ci amul pertement tamit heure bu ko waroon écouler dina dina passé ko di jaay muy doon la nga xamante ne tey donc ne ko naxar donc ñu waxtaan ak xale bu jigéen moom xam moom tamit nan la dundee affaire yi. non bul daw bul daw kaay. kii waxul. nañ doxantu ba ci paa yi fekk na ñu tam ñu laaj ba xam nañ leen gisee situation ba xam. waaw posal ñu wax bele nga waaw mu wax eh. Mohamed ne Mohamed ne eh, waaw Mohamed i ngar um udit jom na jof yo xay to jogamate i mbugo anduna ye a paake rek jang parole comme i mbaage nam nu ñoowtu situation fe no fofum yeg yeg nu njegu teen ah, en tout cas ke jeg na teen fele in mi weke na laya bo conseiller refu président organisé ha jonde e coordonné am mbaxtum mayu e ngono ha aki les autorités comme préfet le patron du département pour malheureusement i ngara ngar bo kamɓe mete leya joof yo maire fe fa um cooɗ teeru fo feer comme ne i nanuna ino fop xay i nana ye depuis la la état d' urgence fe watu ino fop i saqa saqe xu bugna fi activité rek waaga fi activité ku yoqna koy o kiin nu genna localité um ten waagu welli population meeke nak a joof yo doka paas kaga taw bo no dafat lorira jam ko rahe ko bugue nga den baske ke ba mbat natine jege hate men na nahe honnêtement comme solution jege nak do nin fop na atero rek da feler ko kay nyaki am ya na bugue nga ko rahe ko poden sa mo wala mo wala poden atima to o kin we jang autorisation et kem ne den le na a jang autorisation CNG a autorisé de dem barude fuutere ka it maire fe war u waagu dam a rok ndeerum fo préfet fe wala ndeerum fo nam ke bo tiye waagu jeg yaam a soɓanga ke den a jega jom fe faka njongolo to fak ke ñoof yoon to to préfet ten fe patron fe département na njongolora fina ba a faka tiyanam maire fa jurup na ten ina maire fe ina waka fi tàggee ano kaaga daal i mbaag o ndet ten a ɗoma in donc comme ni nga ko waxee ci ci séeréer ñu jéem koo teg wala neena comme ni jibile problème administratif la moo tax lam ci amul diggante ba ci préfet mais dañ koy teg si loxo yàlla rek ñu ngi koy jaajëfal ci yëpp ñu gërëm bu baax a baax ok merci beaucoup jërëjëf